dimbali jigéen ñi maam xarit jàppale jigéen ñi ci lépp jàppale leen ci formation jàppale leen ci gerte yoo xam ne ñu ngi koy sagal di ci am siis tuut looloo waral ma jóg gis liggéeyam ci Touba gis liggéeyam ci Touba ma yëkkati ko nag tuddee conférence maam xarit pour jigéeni Touba bi xam ne gis naa ko ci taxawaayam boobu mooy lépp loo xam ne bëgg na ko ci département bi mbaa réseau bi nu jóg nun jigéeni Touba jàppale ko ca tëyal ko di wax ne Macky Sall lépp loo xam ne ci gannaaw ji nun jigéen ñi Touba noo ko ci gannaaw maam Xadim Mbàkke tey ak ëllëg. élection euh, départementale nun noo ko moom kon ni ñu ko moomee maam Xadim doy nañu dañ koy jël teg ci suñ kanam posé ko jàppale ko mu gagné na topp ci gannaaw ndax booy gagné mooy suñ saas noonu waa Touba. sant soxna Fatou Diop Diémoul ci mobilisation bu rëy bi nga xam ne def na ko tey fii ci mbaaru Darou Khoudoss euh, sama xol sedd na. jigéen ñi woote na mais jigéen ñi wuy si nañ ko ah, wante nag lii dañuy wax ne que euh, benn benn liggéey la rek euh, ci liggéey yi nga xam ne ñu ngi koy def ci biir Touba incha allah dinañ ko gën a yaatal parce que xam nañ ne Touba jigéen ñi dañuy soxla ku leen jàppale ci gi ba ñu mën a liggéey pour mën a euh, suqali koom-koomu jigéenu Touba yi campagne bi ci wàllu rasiyaat yaatal gi ñu ko bëgg a yaatal ci biir réew mi loolu in na parce bi ñuy wax rasiyaat bu njëkk boobu góor ñi nga xam ne ñoo yoroon ay machine muy industriel yi ñooñu ñoo ci doon liggéey mais léegi dañ koy yaatal ba nga xam ne euh, groupement féminin yi dañ ciy dugg euh, vraiment euh, fas yéene nañ ko yaatal itam ci dëkk yi war Touba ba Saalum ba Louga dëkk yu bëri ñu koy fas yéene yaatal liggéey boobu nga xam ne si xalaatu président de la république la jógee muy initiative bu rafet ñu koy rafetlu. ñu guñ cee répondre ndax amaguñu suñu ndigalu ay kilifa. Euh, précisément xalifa général des mourides mënuñu def loo xam ne amuñ ci ndigalam moo tax mënuguñ ci tontu mais engagement bi nga xam ne moom lañ jëloon pour fas yéene jàppale président de la république tey lañ ci gën a engagé wu ko jàppale fii ci Touba ak ci biti Touba yëpp euh, mais lu jëm ci conseil départemental moom loolu moom faaw ñu xaar ba jëli ndigal ci xalifa général des mourides nga xam ne mooy suñu kilifa ñun ñëpp ko xalaat ak jigéen ñi ak soppe yi euh, ñu koy euh, wax rek ne euh, xalaat boobu gis nañ ko dégg nañ ko daañu ci waxtaan ak suñu ay kilifa lu ñu ci diggal rek bu sob yàlla dinañ ñëwaat ci baas bi wax ko nit ñi.